patient est stable. À ce jour, 6034 cas ont été déclarés positifs, dont 4046 guéris, 89 décédés et donc 1898 sous traitement. Le ministère de la Santé de l'Action sociale exhorte les populations au respect des mesures de prévention individuelle et collective. bésu mardi 23 juin 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaja lim ci junni ak ñeent fukk ak juróom test yi ñu def juróom benn ñoo ci positif maanaam juróom fukk ak benn di ay cas contact fukk ak ñett di ay cas communautaire ñu gis leen ci Kër Massar ñaar pikin benn Mbao ñaar Scat Urbam ñaar Grand Yoff benn Mariste benn Mamel benn Liberté 4 benn Yoff benn Touba benn juróom-ñeent fukk ak ñett si ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñett ci suñu malade yi ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñetti malaat ñàkk nañ seen bakkan ci Covid bi ci bésu démb lundi 22 juin 2020 ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci kaab bu njëkk ba Sénégal woññi nañu juróom benn junni ak fanweer ak ñeenti cas positif ñeenti junni ak ñeent fukk ak juróom benn wër nañ ci juróom ñàkk ci seen bakken mu des junni ak ak juróom ak juróom ci suñu structure hospitalière yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu sàmmoon teg digle yi nga xam ne moom la joxe maa ngi leen di gërëm di leen sant